commité initiative bii nga xamante ne moo jóg muy les charges ñu boole ko mu bokk euh, fukki penc ak juróom-benn ci gox bi dajaloo gis ne foog ñu taxaw pour dindi li nga xamante ne moom moo fi ne waaye jàppale xale yi euh, suñu kéem kattan loolu bokk na si liy tax a jóg li nga xamante ne moom moo di ndaje tey bi. pexe yi ñu xalaat mooy d'abord jigéen suñu njaboot. rassuré waat leen dalalaat seen xel parce que xam nañu xale yi bonuñu waaye dañoo xaw a jaaxle ci seen dund ndax di dund ba toll fa say wayjur toll woon mënoo dara parce que métier amatul ci biir loolu nag si la daloon ñun dalul xale yi loolu moo tax ñu ne xale yi foog ñu jógal leen dalal seen xel waaye aussi taxawu leen taxawu leen mooy lan fexe ba ñu am li nga xamante ne moom moo di ay métier pexe ba ñu am lu ñu lu ñu téye loolu nag pexe yi bokk na ci am na fi ay école de formation yoo xam ne yi xale tey bu ci am li nga xamante ne moo di BFM wala nga am bag ñu def ay pexe yoo xam ne yi concours yi ñu fexe dugal si ci njaw xale yi waaye aussi euh, métier yi nga xamante ne mooy corps de métier yi fi ne alors ci wàllu formation ñu fexe ba xale yi am li nga xamante ne moom moo di formation ba bu ëllëgee même bu ñuy tukki ji ñu tukk ñu yóbbaale métier ba duñu ba bu ñu demee duñu taxawaalu te ñoo bari trop ay xale yoo xam ne yi bon def nañ ay njuumte ba ñu dugal leen ci biir kaso bi waaye loolu aussi ñu ñoo ngi ñaan di ko tàmbalee ci président de la république ak ministre bi nga xamante ne mooy wàllu justice ak aussi tous les procureurs ak le juges ñu jàppale ñu pour bàyyi njaboot gi nga xamante ne mooy njabootu waa Tëngéej njabotu li nga xamantene mom moy suñu gox goxani parce que vraiment bari nañ ci kasso bi. donc nap gi dafa am problème le maire wax na légui ci kàllaama tubaab que accord de pêche yi leerul mais je crois que état mo wara a mais liñ ci xam moy tay pêche pêche euh, pêche artisanale 20000 mille pirogues ñoo ci nekk vingt pirogues et sur les 20000 mille pirogues de ci quartier bo dugg keur go nek fekk fa juromi pêcheur c'est un problème c'est un réel problème kon ñu ngi demander à l'état mu leeral loolu parce que xam nañu ne bateau de pêche yi ñuy wax am nañ ci ay éco xëy na bëgguñu wax li ñu xam lépp ndax am na loo xam ne duñ ko wax ci télé ki rajo dañ koy topp ba mu leer mais xam nañ na am na ay sénégalais yoo xam ne ñoom ay partenariat ak ay bateau yoo xam ne c'est des bateaux étrangers ñoom ñoo am ci cinquante et pour cent euh, européens yooyu am si quarant neuf pour cent te ñoo ñu ko xamante ne ñoo nekk ci pêche boobu yore charité yi. tey jii ñu ngi yor ay position ci patronat bi parce que il faut que sénégalais yi ñu bàyyi xel yenn yi parce que patronat bi fokk état bi seetaat ka mandat bu dul jeex amul e ñu ngi profité ci seen ay position ñu ngi profité ci seen ay casquette di def loo xam ne dafay gaañ napp gi. bul sonn dëkk bi xam nga lan moo fi nekk problème mu lekk ak problème faju ku am problème mu lekk faju nag nga naan kaan bàyyil boo koy bàyyiloo day am loo koy téyeloo. donc les yi dinañ def des une sensibilisation parce que nous sommes perte ñun la suñuy doom di nous ñun la suñuy qui di Donc Nous faire des ba